mbokk internet Kabir TV ñu ngi leen di jaajëfal di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun ñi dikk ak yéen ci xibaare ci kàddu gi ngeen ànd cekk soxna Fatou Gueye ci xarale gi ñu feggoo cekk Mansour borom daara ji ji ci réew mi Macky Sall daal di yëkkati ay kàddu ca cérémonie internationale la ci changement climatique COP 27 ba ñuy amal la jamono ji sa Égypte ni lii di bekkoor bàyyiwul réew bu am koom wala réew bu ndool li gën mooy ñu gën a booloo gën a taxawu liggéey ci changement climatique bi nga xam la planète bés bu jot ne ñaari ponk yi ko gën yitteel la bokk na ci lii bokk na ci ñu def lépp lu war nga jàppale bu baax la mise en œuvre de la convention des nations unies ci xeex bi ñuy xeex la désertification ci réew yi mu gën a laal rawatina fii ci Afrique ñaareel bi di alliance bi nga xam ne day gën a taxawu promouvoir une transition énergétique juste et équitable qui prenne en compte li di réew Afrique yi mu soxal la ca Mbuur gannaaw garde xeexoo niki alxamis bi weesu eh, ca tribunal bu Dakar ak jàmmaarloo yi amoon ca cekki doxoon ci waa APR ak waa fa mu mel ni coow li jeexagul ndax ñii di waa PASTEF daal dina ni bind ab plainte jébbal ko procureur bu Mbour gannaaw ba ñu ne ñenn ci ñoom dañu am ay gaañu gaañu yu metti ñu sàkku ñu bi ci ab enquête ndax mbir mi leer gannaaw jàpp ko journaliste bi di Pape Alé Niang niki dimanche bi weesu CAP coordination de association de presse def ab déclaration ci tuuma yi nga xam ni dañu ko wékk ci ma ne daa fësal ay documents militaires te amu ci autorisation ca loolee tax ñuy sàkku ñu bàyyi ko ci nu mu gën gaawee te du am ma benn condition di kàddu yi Mamadou Thior njiital CORED ba tey ñoom waa CAP di wax état ñu sàmmanti ko ak li constitution bi tënk ci article ak dix relatif à la commission des délits de presse tey ñuy woo ñëpp ñuy xeex ngir liberté daal di fi jëlee tendance d'intimidation et de musulman de la presse ay fan rek des ñu daal di door lii di coupe du monde Qatar 2022 ngir mën a teg lii di match mondial yi sénéral conseil national de régulation de l'audiovisuel daal di indi ay leeral niki démb ci altine ji juróom-ñaari fan ci weerum novembre daal di valider di sàkku tamit ci yeneen média média yi ñu moytu bépp retransmission illégale la biti réew ca Mali ngir xeex ñàkkuma kaaraanga ca réew ma rawatina ca région bu gaawo waral ba comité local de la société civile de Ansago ak ay ñoñam niki dimanche ñu fes yéene door ab 48 heures désobéissance civile ca biir gox ba bu ñu sukkandikoo ci RFI di dox talaata ak àllarba loole la ko waral di sàkku ci état malien ngir mu jël ay matuwaayam ci ñàkkuma kaaraange ba nga xam ni mu nga ca gaaw ca benn groupe de travail de l'ONU di sàkku ñu bàyyi kii di Rekia Madagu fare ci kujje gi doonoon tamit euh, ministre ñu daanoon ko ci weerum décembre bi weesu ñaar fukki ati kaso gannaaw ba ñu koy toppee ne mooy dooleel lii di financement du terrorisme ca réewum Bénin sa Tchad ñi di autorité yi daal di nangu ab enquête internationale ngir leeral jaamaarloo yi métti ya fa amoon ñaar fukki fan ci weerum octobre nga xam ne ñii di manifestant yi féete woon ak kuje gi amoon ci juróom fukki yu ci ñàkk seen bakken lu tolloon ci juróom téeméer ci ay gaañu gaañu biti réew ba tey bi la yoon nag ca Nairobi niki altine juróom-ñaari fan ci weerum novembre ñu doraat waxtaan yu ñu doon amal ci diggante ñi teewal gouvernement bu yi ak autorité du Tigré waxtaan yooyee ñu koy amale ca Nairobi gannaaw ñeenti fan rekk bi ñu signé accord ngir dakkal la seen jàmmaarloo yee bila yoon nag waxtaan bi ñu muy yitteel di chef d'état major ñaari wàll yépp ca Cameroun na gannaaw ba ñuy fetee li di ñeent fukkeelu atu anniversaire yi nga xam ne Paul Biya def na ko ca bopp réew ma bu na kii di doom ji Franck Biya daal di jokk wane boppam ma ci ab tournée ngir jaar ci tànki papam waaye taxawaayam ci politique ca biir réew ma Cameroun na ca Gabon ak waxtaan yi mu sekkoon ak Jeune Afrique lu ci mel ni économique protection sociale illégalité des chances waajal présidentielle 2023 yi di ñëw Rose Christian Osuka Raponda jëwriñ bi njëkk ca gouvernement bu Gabon daal di ci profité ne Ali Bongo Ondimba mën naa donaat candidat ci présidentielle 2023 yi di ñëw kii di Christian Osuka Raponda daal di def taarix bu am solo ci politique ay atam toll ci juróom fukki at ak juróom-ñeent doonoon ministre du budget ci gouvernement bu euh, Ndong Sima ci 2012 ba 2014 laata muy doon maire bu Libreville euh, mu ñëwaat ci gouvernement bi ci atuma 2019 doon ministre de la défense ci 2020 mu daal di gën a def jéego yu am solo ñu daal di koy tab bu jëwriñ bi njëkk ci gouvernement bu Gabon boo moyuwul kii di Ali Bongo bi doon candidat ci élection présidentielle 2023 yi di ñëw moom Christiane mooy doon directrice de campagne bu Ali Bongo àddu wax ci tension bi dox ci diggante RDC République démocratique bu kongo ak Rwanda di gën di yokk bés bu nekk ba ñu génne ambassadeur Rwanda ba nekkoon ca république démocratique bu kongo fanweeri fan ak benn ci weerum octobre jëriñ bi ñu denk wàll biti réew ca Rwanda daal di bind ab bataaxal la naataangoom bi di jëriñ bi ñu dénk wàll biti réew ca république démocratique bu Congo ngir ñu bàyyi ñaari doomu rwandais yi nga xam ne dañu leen a teg loxo ca république démocratique bu Congo ca gannaaw faat ka Mao Zedong ci juróom-ñetti fukki ak ñaarama gannaaw ah, ba mu jiitee réew bu Chine pendant trois décennies ah, boo moyuwula kii di Xi Jinping muy jiite réew bu Chine ba fii ak 2036 di yemook Xi Jinping di am juróom-ñetti fukki at ak ñett ah, ci fan yi weesu rek ñu tabboon ko secretaire général parti PCC ci bi ñuy tëj seen congrès bi ñu doon amal. la limo fi ruse woon ci ay xibaar ngeen di wéy di ànd ak programme Kabir TV kàddu gi ngeen àndoon cëkk soxna Fatou Gueye ci xarale gi ñu feggoon cëkk Mansour boroom daara ji